bismillahi wa ala millati wa manhajil xadim wa sallallahu wa sallama ala sayidil xalq sayidina muhammad wa ala wa sahbihi wa xayri xadimihi wa man tabiahum bi ihsanin ila yawmi din ama baad asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatuhu bokki Sénégal ñi nekk ci réew mi ak ñi nekk bitim réew Eh, di ñaan ñu bokk jàngat li nga xamante ni bii moo dolliku ci xew-xew yi nga xamante ni bii dafa concerné ñii nga xamante ni bii ñoo fi nekk jiite réew mi ak ñi nga xam ni ñoom lañu ñu fi remplacé te ñaari ña ca bopp ba di ñaari rais yoo xam ne raisul maat wa raïsul hal ba noppi loolu mooy chef d'état bi fi jógee ak kiko fi remplacer té ñu di bay ak dom mu laaj jangat ci lu ñuy wax settantal maanaam ragné lu yemul ci connaissance rek ñu dugal ko ci savoir ñu wara jangat digënté bobu moy lan moy ban digënté wara jangat digënté pouvoir ak opposition moy lan waye man samay wax damay tambalé ci ku tedd ki wax li ma wax ba noppi ñëw yeewaat ko ci moom te donte loolu dafay concerner bépp Sénégal yi itam ñoom ñaar itam daf leen di gën a concerner ci ñaar yu may bëgg a wax Abdoulaye wàdd ca Daaru Muxti mu jël micro ni jërëjëfe Serigne Touba publiquement Macky Sall ca Mbàkke wal mu jël micro ni jërëjëfe Serigne ba nga xool luy Touba xool luy Bamba ku ci nekk ba ngay exprimer wu moo xam ci émotion bu mën a doon bii damaa fekkee bii damaa dégg kon lenn lu ci nekk am na lumière bu ko lal leer nag bu ñu koy wax ci ku gëm ci ab jullit rawante nag ku ni Sëriñ Tuubaa la yaakaar kon ci xol lañ koy mën a séentu duñu ko séentu ci parole ma jàpp ni ñoom ñaar fexe ba ñu déggoo wërta jafe ndax làmmiñ bu fekkente ne mi ngi naan jërëjëfe sëriñ Touba ci chef d'état chef suprême bu mën a génne modestement ci làmmiñam jërëjëfe sëriñ Touba kooku warta jafe ci jubale ko ak kenn waxumalaat bàyyi doom ak fi ñu seq li ñu seq ak fi ñu jaar dëgg la humuril insan yaa amaru bi tadrij vérité relative li ñuy dund ci suñu quotidien waaye ba lu nekkee xew rawante naa ci champ politique waaye lu mu ci mën a doon rek daay li ñuy wax ak daay ab lay Wade mégo la sànni mégo mégo la sànni mégo bi taskati xibaar yi la ko sànni taskati xibaar yi moom seen métier la ñuy def ba leen sànnee mégo itam seen pétrole la ñu yor ak seen essence du dëgg

wax ma ne ma c'est ma ne ko wax de moom fekkente ni génn na wala fii dañuy wax naan loo sànni la bu dee xandeer waa xeer xamoo ci bopp bu muy dal bu dee ku watu nel mën naa xaañu bu dee ku watul nel it mën naa xaañu te du ko yëg waaye lu mu ci mën a doon ma ne ko ma ne leen kilifa yi nga xam ni ñoo ma woo téléphone te ñooñ sax dañu dee ay soppe motax ñu wooma di di ki dal di metti lu neew ñuma sax na wax ci presse wala dara waye comme li sama initiative la bo xamanteni bi duma du ma ne ñàkk naa ay conseillers de waxuma lool waye dafa am lo xamanteni bi bu ñëwee brusquement dang koy assumer waaw waaw wax ca la nga xam lolo ma dal ba fekku leen fii samay mbokk xarit sama collaborateur tout bu ko defee lima bëgg rek ñëpp déggandoo ko mooy li ñuy tuddee ñaari concept yi ci saytu ak moytu ñun ñëpp la concerné yéen ñi taskati xibaar yeeg kilifa ya ca penkook yi ci soowook yooyu diine yeeg yooyu àdduna bi réew mi ñëpp la concerné ñaari concept yooyu ci saytu ak moytu xef nag bu ñu ko defee xef képp bu ñu ko defee dina am lu xew ci réew mi loo xamante ni nona nun ñëpp bu ñu ko jiñ rek Macky ak Abdoulaye ndax maké ak Abdoulaye wad biñu ñu fee di baye ak doom andi gouverner ci sunu kanam la yi fi xaw yépp ñëpp xam nañ ko li ñu niroole ci digënté 6 ak neuf it xam nañ ko ñu am justice am constitution ñu ne ay républicains lañu ak i républicaine waye buñu faté né ñun dañu no coloni coloniser woon te colonisation bi ba légui jogoguñu ci da koo nuru ni jogé nañ ci waye jóguñu ci bu nu fàtte ñun ay sénégalais la ñu suñu réew dafa am ay réalité maanaam li ñu tudde mentalité bu doon forme mbaa lu nu ñum loo xam ne dañ koy mën a peinture mbaa ñu koy diw loolu lañu tubaab yi def ba nu ne najj ne najj day ni nun ñëpp bu ñu accepté loolu ba xool ko jàngat ko ba pare nag léegi lan moo ci des fii àdduna toll lu nekkee xew fu nekk ñu tudd ay islamiste kii terroriste yi sax dañuy soppi tur yi naan islamiste kon léegi ñun Sénégal ban jàngat lañ war a am ci loolu pour en cas pour bañ rek dara xew ñi juñ ko seytaane iblis iblis dafa weexu donc quatrième position la nekk a seytaan dafa am alhawa am addunia am iblis sooga ñëw léegi nag am na loo xam ne bu fi xewee ci réew mi ñoo naa du iblis gis nañ liy xew ci àdduna bi yëpp bu dee jiiñ iblis dara na kenn nekk taxaw sa taxawaay waaw li nga xamante ni bii Ablaye Wade wax na ko démb ñu relaté ko nit ñi di ko dégg am ñuy koy ñi ëpp di ko ñaawlu wax moom dafay am loo xamante ni bii bu jógee te jógee ci mag Ablaye Wade ni ma bëgg ñu traité ko ni mooy dañuy jàngat ban âge la am ak ci ban situation la nekk loolu boo ko jàngatee ba noppi xool li muy wax di nga mën a xam li muy wax réalité la wala du réalité di mën a xam foo koy teg du dëgg ki nga xamante ni bii nag mooy mag yi ci boppam yàlla bàyyi gi mu fi bàyyi ñëpp jël ko teg teg ko ci boppu réew mi képp ku koy dimbali tey collaborateur am doo ko sottil essence doo ko sottil pétrole ndax loolu day yàq liggéey day freiner liggéey comme ñoom yàlla dimbali na leen ba fi ñu toll ñu ngi ci position boo xam ne ñu ngi ñoŋ-ñoŋi bu ñu nangu li leen ko yàqal bu mu doon ci ay wax bu mu doon ci ay jëf. li wolof nan buur ayul dagya yaa ay nak ñaari kilifa gu nek di nga am ñu nek ci sawet ay collaborateur yo xamne ay conseiller yo xamanteni bi ñi dañ nan le président ki daf la yeb wur la wax li wax ji ñaaw na nang ma nak wax mën ta wañi kenn dara wax wax ta wañi kenn dara wax ju naaw ci ngelaw li <laughs> ta wañi kenn dara bu fekkoonte ni dal ñi nga xamanteni bi bii conseiller mba ñoy wax ak ñom bu ñu man Ablaye rek taxul may wax ci ñepp la wax chef d'état dafa yoo xamante ni bii ci moom lañ koy gën a séentu ci tànqam lu lu dul noona waaw ci muñale ci yermande waaw ndax loolu day delloo yàlla njukkal waaw parce que jullit la sénégalais la te jullit la gëm na te murid la waaw murid nag dafa lu ci Sëriñ Tuubaa wax uri li wàcci maliki sabila kulla muridin sadiqin nabila boobu murid lay woon yoon wi murid bi nga xam ne dafa véridique aspirant bi véridique et intelligent Kokola la naan yoon baa ngi nii te jàpp nañu ni ci ñooñu la ah ndax mooy chef suprême bu ko defee ñi nga xamante bi bii di ñooy wax ak moom bu ñu ko lépp loo xamante ni bii luy nuru lu ñaaw la nañ ko ko waddal ak élégance ak yërmande miséricorde loolu mooy defar loolu ngay defare lañ njiit waaw waaye ku fekk ñu Abdoulaye dañ ko dañ ko nangam ak nangam <laughs> <laughs> yooyu jaru ko fi hmm? yooyu jaru ko fi te itam wax dëgg yàlla wax la joo xamante ni bii eh, bu fekkente ne dafa jóge ci moom jëm ci koo xamante ni bii eh, njiitul réew la waaye moom sax bañ na ko ba buy wax daanaka du wax président de la république Macky lay wax bu ko defee am na noo xam ni ni ñu koy woyee fale daal mooy na ñëpp yor seen poti ndox waaw gis ngeen ak daay bu tàkkee bu yee ñëwee ñun ñëpp dañ doon ay pompier rek moo gën <laughs> te bu ko defee ñenn ci yéen itam ngeen jéem a doon pompier <laughs> donte da ngeen di def seen liggéey loolu bu nu ko defee dara du fi xew waaw dara jàmm rek a fi xew waaye gis ngeen dinaa ko waxaat xef xef bu ñu ko defee rek euh, dina doy waar te boobaa ñun ñëpp lay concerné ñun ñëpp lay concerné jaru ko mag moom bu waxee dara da ngay xool âge bi xool la tax mu wax ko xool situation ba waaw jàngat ko def analyse globale diagnostisé waaw bu ko defé waye nak da fay am lo xamné amna ño xamanteni bi manam buñu déggé dara rek ci loolu la ñuy aw waaw ñun nag wasalaamu ala man tabahal huda dañ koy fàttali mom la Serigne Touba daan signé waaw jamm di su ko wax rek ab la da ngay jaar ci yoon wa fa jëm nañ wax sax réew mi nañ ñaan jamm am fi kenn mënu ko ñaan kenn mënu ko ñaan ñaan moom li ñu fa waroon a ñaan Serigne Touba ñaan na ko ba noppi te ñaan gi nangu na waaw mi ngi mel ni rek euh, boisson yi la tegal fee boo demee da ngay dem rek jël naan loolu la nañu wax wax ji mooy nañu wëlbatiku ñëw ci li nu Serigne Touba defal ñu gëstu ko njariñ yëpp la nu booleel li xutta fi kulli shay'in nafha zi karamin yaa nafihan li zawil imani yàllahu moom la Serigne Touba wax ca ik fi nii bu nu lu nu dal noo ko teg suñu bopp waaw Serigne Touba waajalal nanu lépp amara ni rabbi bi an usarriha bi an ni malazun wa mafzahun faman arada fii kilta yi daarey ni asaada faman arada alxayra fii kilta yi daarey ni fal yallus bii loolu Serigne Touba wax waaw na yàlla moo ko wax ni ko mu wax ni mooy malaz mooy mafzah ku jàq ñëwal ci moom ku jaaxle ñëwal ci moom mooy dernier recours waaye kii boo ko amee ci sam réew tubaab yi jëlee fi pendant 33 ans exil après exil tentative mortelle bu nek ñu def ko suñu borom bañ radata mawti lillazina axraju falyen sarif minni ilayhim haraju bu fuk ak ñett ya ko doon fetal ñom ñëpp ku nek sa bal ray la bam wax ci lamu ci wax bind ko ci bisu samedi ilayya wajih ma lahum xat kutiba minal xuwéri wa baqa iyaktuba ñu am ku yi ci sunum rew ku fi falu ni mom nga yaakaar ba nopi te ñuy gis yenen ñuy gis yenen Serigne Touba boko ko ci mom nga wara référé wu deug la jang nga tubaab am nga ay jassa ak yépp nek nga responsable hmm, dans un gouvernement hmm, dans un état waaye du té ndem da nga gëm Serigne Touba wax dëgg yàlla dafa am li ñuy tuddé constitution suprême qui est le Coran Serigne Touba def ko ni def guerte ba huile bi ya'ba'u bikum rabbi lawla du'a'ukum bu ni yalla invoqué woko man na la répondre na première première lettre ba ne en kulli li karimin wa توبيخ إكرام وقلت بخ بخا دم بتا ميم بمجبة من محمد من قلت فيه بخ بخا والآل وصحبه وكل وبقى سرين تبا مي لولو نغا خمني لب لو أم يرين لو نيك لب لو أم فرم لو أم فرم لو نيك أك فون فون با يالا جوخ نكو لو أم يرين لو نيك نجارين لا يالا جوخ نكو كي دانو أم تي ريو bu nu naree jaaxle mbaa ñu nar tiit nañu dellusi ci yoon wi munu jaarloo bu nu ko jëfee jamono ñooy te yoonam woowu nag mooy wenn yoon wi moo xam nga dem Tiwaawan wala Laayeen wala Ñaseen foo fi dem benn yoon bi la seulement dafay chef suprême looloo tax waaw dafa moo wax ni bu yàlla dajalee ñi mu élire ñëpp tous les saints de bu leen di récompenser mel ni moom moo leen loolu waxu ko rek bàyyi ko fi daf ko jëf wane ko ndax tubaab dañoo bari pexe te puissant yorey pouvoir fu nekk ñu jaar la ko fa ni faratey julli ak sunnay julli toll muy fanweer ak ñett di dund bu soo soxna Jaariyatu la borom proxaan barki Dembo Njaay fanweer yooyu ak ñett ak fanweeri nattoog ñett yoo xam ne yëpp mu traversé ko mu di ay épreuve mu soog a wax ne nag en fawtu anil an daa ituran tebul rek baal leen tebul rek baal leen am na fu mu jaar ak ñoom bañ mujj ni ko Bamba merci ba noppi excusé wu ko mu baal leen waaye tebul tëb rek ni baal naa leen bu loolu amee sunu réew mi tollu fii wax dëgg yàlla diggante Macky ak Abdoulaye Wade jafewut li jënti na ci ñëpp jóg na ci ñëpp jóg <laughs> surtout les responsables moo xam responsable religieux la moo xam temporel waaw lii nag damane ne woon mënu ma ko ñàkk bañ wax ndax xew-xewu démb bi après dinaa len baye ngeen poser ay questions waye nak damay waajal wax bo xamanteni bi parce que dama don jàngalu 14 millions bax baxaa mu egg dans une semaine te bu yeggee war naa wax lutax ma koy jàngalu 14 millions bax baxaa poème bi ma len wax léegi dama ko don jàngalu te bu paré war naa wax lutax ma koy jàngalu

waaw mooy lii wëndeelu rek liy wëndeelu bu defee looloo taxoon ngeen baal ma ci dérangement bi ak euh, yéex gi leen ko yëgal diggante démb ak tay la ay nag euh, di leen sant itam ci bi ngeen bàyyi parce que fu ngeen tool yéen a ngi liggéey comme nag xaj-xajal ngeen ko ci li may xat-xat sant leen ci def ciy baax loolu daal moo taxoon moo woo leen lu ma ci waay bëgg a laaj nag nga laaj ko aleykum salaam wa rahmatullah mi ngi maram ñooy ko waxee nee nga daaj gi mais sooy xool jamono ji daaj gi dafa mel ni lenn rek ko muy affaire u Karim Wade mais mmh. tey jii dem nañ ba nga xam ni yoon mun naa ni jeex na ba pare parce que le 23 la ñu war a joxe àtte bi est-ce que tey jii waroo wax ñi nga xam ne ñoom la conseil yëpp ñu toog xaar yoon joxe verdict ba pare moo gën ñuy waaw xam nga xalaati yi dafa bokkul ku nekk ak na ngay xalaate ixtilaaf bi bi nu suñu borom daf noo bind ñu doon ay nit ba noppi même yéen journalistes yi métier mi rek ngeen di bokkale waaye bu ngeen xasee génne métier mi nag ku nekk mën naa bañ a bokk ak morom ni muy gisee mbir métier mi xaj na yéen a koy bokk ndax yéen a ko jàngandoo du dëgg waaw alquranul karim ñi ko jàng ñëpp waaw kenn ku nekk li nga jàng ngay tari waaye nag fiñ ñu toll nii bu dee man Modou Kara maay wax ak yow man bu fekkente ne dama lay wax man sama deug li nek ci man bu fekke deug la lay wax goo xamanteni bi moy deug ci ca yi ya, parce que deug gi yoon ci gi gii ci malaaka yi ya vérité absolue moy bidul sopek mais bu sunu deug gi day sopek waaw te ak sa deug mak sama deug soxna si ku deugam ken beugul ku ñongal ak deugam di seyel sa deug waye nak comme ñi di wajja atté ñi di wajja atté man xama nga wax ak yow dama naan la li ñuy atte nañu dem dama naan la man kon nañu dem référé wu ci constitution suprême qui est le Coran di wax yàlla bu dee man loolu laay wax bu dee man loolu lay wax la euh, républicain wala sénégalais wala yu demee non. waaye man selon kii mon entendement hmm, ci sama sama esprit waaw man ak li ma gëm maanaam bu ni, ñii atte ñii

ñu bëggoon. Hmm. leeral rek parce que. li hmm. ci seen bureau wax nañ bay wax hmm. nañ ñun ay wàddist lañ kon lépp lu nga xam ne mën naa ne Abdoulaye Wade wax na ko ñoom ñu koy cautionné ci sa tur est-ce que waaw waaw xam nga loolu Karaay Karim ji. waaw Karaay Karim ji naa ci ñëw waaye damay njëkk a ñëw ci li nga mujj wax ci xale yi ni ay wàddist lañu wàddist xam nga baat la boo xam ni waxeen rek. hadis mooy ku ànd nit ku fakir xam naa ne xale yi ñi ci moom dafa am lu ñu bokkale ci yërmande yërëm góor gi loolu it xam naa ne am na ci moom waaw parce que itam nag wax dëgg yàlla na hasanaati yuzhibna sayyi'ati gis nga yu ñaaw yi ak yu rafet yi toujours da nga leen a war di mandexe ba xam lépp waaw Ablaye Wade li nga xamante ni bii wane na ko

dañuy bëgg dañ koy bëgg satisfaire lu ko neex lañ ciy jublu xam nga mag boo toogee ak moom da ngay fexe bu fekkee ne da nga koy fexe satisfaire ci loo xam ne aayul ci lu ñaawul li bon daal mooy fekk mag nga koy cautionné ci loo xamante ni bi lu aay la mbaa lu ñaaw waaye nag fekk mag moo xam ne fu nekk jaar na fa li ko dal dal ko ci njabootam dëgg la dañuy tudd doom ji naan Karim rek waaye du ci du Karim rek <laughs> du Karim li ko dal du Karim rek du Karim ci gën a fees c'est normal ndax moo yoroon ministère yu bari ba noppi nekk doomam et cetera waaye fii ñu toll nii loolu moom man ci son bopp ndax man sëriñ Touba laay bàyyi xel waaw ci bu may jéem lu rafet waaw lépp doonul loo xamante ne bi dinaa koy mën a expliquer waaw Serigne Touba laay bàyyi xel ci loo xamante ne bi dama koy rafetal Abdoulaye am na yu ma xam ci moom yoo xamante ne bi du jaar ma koy wax fii digganteem ak sëñ Saliou ak digganteem ak sëriñ si ak yu demee noonu waaye dama bëggoon ñu wax ci actualité bi rek ci li nga xamante ni bii moom mën na yëngal xol yu bari euh, mën na tax itam ku teeyul àndoog sam xel maanaam wax ci lu ñaaw mbaa nga def ko ci te bu ëllëgee du ko jar man ci foofu laay waxee. amma jëmmi karaay karim ku ne xam na ni langage yéen ay kii ngeen loolu ngeen jàng karaay karim bu déggee baat bi rek xam ni am na lu ci nekk ci biir karaay karim <laughs> définition bi nag maanaam karaay karim yi boo ko doon firi man nga ci indi ñetti masala ñetti maanaa yu bokkul yoo xamante ni bi du xaj fii waaw Karaay Karim ji moom kooku stratégie de soutien la rek du du loo xamante ne bi parce que bu leen fàtte ni mos naa ko fee bind lu ci mur yi 33 Karaay Karim boobu dara xewagul boobu Abdoulaye Wade moo nekk au pouvoir 33 Karaay Karim 33 kii ngóor si moo ko doon bind ci mur yi Karaay Karim comme na ma doon bind loo kii rek Kara soutien Macky set loolu kenn fàttewu ko fi waaw bismillah c'est-à-dire waaw loolu loolu man euh, defaguma ko ay li ma ci wax defe naa ne dafa doy. waxe naa ci nu nekk xam nga ñoom xam nga les hommes d'état ñoom ñi nga xam ne ay niti état lañu ñaare boo leen bëggee wax euh, lu la ñor dëgg-dëgg jarul sax di ko xuumtoo di ko wax bàyyi ba toog ñoom wala yooyu man xam ne dama fee wax ba tey seen diggante mais yow li nga may wax ne Abdou Diouf la gënoon a war te defu ko njuufa ci boppam moom la gënoon a war te defu ko ci njuufa yi la doon gën a gaawe parce que Macky dafa falu yàlla dogal mu jublu Abdou Diouf Abdou Diouf na mënon na ci profiter ci djublu gi ko makki djublu ni ko ki fexé ba rafetal ak mom num gëna gaawé a <laughs> bu dul dara yit sa baye ba nopi te jaarale la fi mu la jaarale li nga may wax ni Abdou Diouf la gëna na war wa xagna la tax difu ko mom moko xam man di wax deug yalla ma ngi bay sama war wa amna lo xamni nak jorul di répété ka répété ka répété <laughs> mais parce que man do nga nekuma fi <laughs> wa Ibrahima Kane télévision Futurs Médias léegi ci sa kàddu wax nga ne bu ñu xefee waaw kon woo nga ne nga kilifa yi war nañ cee jóg c'est ça loolu nga wax léegi nii bien sûr ci jóg boobu noonu nag yow déglu nga démb Abdoulaye Wade maanaam li mu wax waaw yow jóg boobu ngay pour euh, kilifa yow ban nga ci kilifa yi yi comme dañuy samay kilifa duma leen adressé ben parole xam nga Ibrahima Sall sama jarbaat dafa mës a bàyyam jili mbay rahmatullah alayhi dafa Ibrahima dafa mës a dem di ko yóbbul benn journal ci lu ñu wax ci moom ci lu dul noona mu ne ko loo ma ciy wax waaw ku ñu pes sa bàyyi kay fajoo ko ñëw ba fii <laughs> nangam ma ci nangam maanaam ñoom ñooñu ci penku comme dañuy suñuy kilifa hmm? ñoom ndem bu fekkee ndigal la wala conseil ci ñoom la war a jógee ñëw ci ñun waaye ñun bu jógee ci ñun dem ci nyom day melni lu lambert du deug xam nga waxna fi ci njal ben nii ay kilifa dañu ma wo bañu ma woy néewuñu ma waxal ak presse bi wax deug yalla dañu ma doon wo rek ni ah mom di doy na li ñuy dégg daal nangam ak nangam li kiti laa nangam ak nangam waaw néew maa leen itam dina wax nangam ak nangam wax deug yalla waxuma len ko de waaw na wax nangam ak nangam bobu itam lu bax lañ ci jublu waye da fay am lo xamanteni bi xam nga euh, Demokrasi deug la naam euh way budé ci walu bu ci walu l'islam euh bu bu fekkente ni kilifa gi wul concertation kilifa gu maggi ki nga xamné moy chef suprême chef woti wul concertation bu ko défé day dudul placé ci kenn dudul placé ci kenn ci ngay jël ay euh di len jema a conseiller wala yu démé non da waaw yeen xama bu ngeen fatali ko Daaru Moti il deux ans ba may wax ci affaire xilaafa yooyu gis ngeen Pam Ngañ Njaay taw yi yeeg ay yooyu demee noonu waaw waaye nag comme <laughs> rumit tawa don alikay na seexa ji ku tedd ki waxoon sama maam jamono bu nekk rek waaw bu fekkee da ngay jéem a nekk un homme humble un homme modeste Euh, waaw bu ko defee nga xam ne da ngay wàcce sa bopp toujours rek ak waaw ma gën a leeralaat laaj bi waaw léegi tey ji yow gis nga li Abdoulaye Wade def ah. euh, xam nañ tamit li ko sabab muy mbiru doom ji Karim tey ji boo waroon wax ak maître Abdoulaye Wade lan nga koy wax wala boo waroon wax ak Macky Sall bi njiit réew waaw xanaa Macky waaye Abdoulaye Wade fi mu toll góoma ne jar naa wax dara mag mu toll fii mu toll li ko dal dal ko ba muy wax li muy wax nii loo ko waxoon ci ko de am de njiitu réew mi mooy mu tànqam lu yi nga xamante ni bi du jurug defar mooy li ma waxoon fii léegi rek gis nga Macky su ma doon mooma laa illa damay ñëw fii maay dawal sax sama oto maay dawalal sama oto du ma ànd kenn ni dara kër Ablaye Wade du dara gis nga Sénégal un Sénégalais lépp ci lu lépp loo xam ne day rafet wala day baax day jur jàmm war naa am souplesse am waaw gis nga nekkul ci ay bon chef suprême doyul yaay chef yaa chef ñëpp <laughs> ba fi mu toll nii su ma doon mooma damay surprendre ñëpp waaw mais si tol lepp toll bu ko neexoon jeexal ko te kenn du ko ne dara duñ fi nek nan ko justice bi ak constitution ak l'équité la duñ ko ko wax <coughs> waaw parce que moy yilif nak moy yilif nak waaw moy yilif nak wax deug yalla pouvoir exécutif moo nekk ca bop ba waye bi fi nek moy lima doon wax légui rek ci nasaran yi liñu def ci suñuy bop loolu la waye buñu ñu delloo ci maam yi rek nu né la ñuy mëna a nu né la ñuy mëna a waye waaye kii chef d'état bo xamante bi ku ko neex jàppalu ku ko neex jappalu ah lol doyul seuk waye xana duñ ne la ya mom di ceeb bi rek nga lekk lépp lu kenn ko def ah, waaw sant si waaw dolli boo dolli rek ma tontu wa léegi debbu gis nañu dañ sa ben délégation fi ni tamit waaw ci maître Abdoulaye Wade waaw sama ñenn ci sama rak ak ñenn ci sama do waaw euh, euh, soutien la soutien euh, ndax léegi dañu xam ben njort ñu laaj ndax tamit ci côté Abdoulaye Wade ñaanu la nga def médiation non Abdoulaye Wade du waxuñu sax duñu wax mak mom

bu fekkee ciseau la woon daal boo xam ne dañu ko dévisé yóbbu benn parti bi ñu delloo si ko yëpp fi ñu toll Macky moom moo yore télécommande yi waaw moom bu koy neex rek <laughs> moo yore télécommande yi loolu la Abdoulaye Wade fi ñu toll jarul wax dara boo kenn ci collaborateur yi wax ko ne ko neel góor gi nangam itam wàcc say wax la maanaam du ko wax mbaa bu ko xam ne koy eh, toppal fee mbaa nangam ak i nangam <laughs> comprendre il faut nga xool fi Abdoulaye Wade toll Macky laa ko ni na ni tekk concentré wu

Si bu ko ni eh, mettre en résidence surveillée ma la comprendre waaw ci bu ko nexé moy am way wo xamanteni bi dañuy vraiment waaw c'est un bon c'est un vrai chef d'état euh, sama soutien dama koy façonné man ma nga ci bu un yi yu waqirul kabir la ci Serigne Touba référé Sëriñ Tuubaa moo ne wala yinil la li kulli naasi mag bu dul dara bu dul Ablaye Wàdd sax mi def dara ci réew meeg defu ko feek Sëriñ Tuubaa dafa wax ñuy war wormaal mag hmm? néewul na mag wax luy naqari kenn néewul na mag wax lu ñaaw kenn waaye Sëriñ Tuubaa daf ne boo ko déggee wax ji moo xam ci mag la jóge wala ci gone bu nuroo lu ñaaw neel xañ na du ko nuru ci forme rek ay nduru ko ci fond Serigne Touba rafetal lay jàngale man foofu lay soutenir Ablaye Wade ci côté boobu man fi ma koy soutenir bëgg di xam nga am na loo xam ne mu ne su la wax lépp mu ne su la wax lépp parce que Ablaye Wade nag <laughs> Ablaye Wade sonn naa ci de sonn naa ci de <laughs> sonn naa ci ci kër mu bañ a indi yenn luy jur fitna waaw loolu waraloon cent 1111 yi ma solo woon ay t-shirt Bamba fépp Bamba partout Bamba everywhere xam ne ku xarawul ku ko sol jàkkaarloo yow boo xaru boo boo boo dee xaru nag mën nga koo sànni lacrymogène mais boo xarul doo ko sànni lacrymogène man loolu lay ab <laughs> Ablaye Wade foofu ñu bari dafa dañoo def noonu dama koy soutenir mais soutien la kon boo xamante ni bii li ñuy tudde bakkar feggu aw bakkar feggu ànd na ca mooy lan dama doon apaiser waaw la situation <laughs> waaw te gis nga man fekk ma waaye dégg naa ni policiers yi bu ñu gisee ñi sol ci seti bamba fépp yi sànniwuñu lacrymogène dañoo bàyyi bañ dem yooyu yëpp ay kii la stratégie yooyu yëpp a ngi fi waaye Abdoulaye Wade daal moom fi toll li ma leen wax rek moom <laughs> jarul wax dara waaw nañu wax Macky comme moom la yàlla jiital waaw mu feeñal yërmande waaw feeñal yërmande xool jàngataat fi mu jaar ak Abdoulaye Wade rek daal loolu mooy samay wax ak kan. maa ngi lay nuyu. Hmm, maa ngi lay fay. Ah, lay fay waaw hmm. xam nga zahir dafa am baatin am jàppale nit publiquement en public ak jàppale nit en privé dafa bokkul waaw de toujours may jàppale nit loo xam ni sama diggante ak moom la ak yàlla du dëgg bu dee nag les hommes politiques mën naa am looloo tax boo leen di jàppale ah comme politique moom <laughs> gis nga noo ko xamandoo naa moo tax boo leen di jàppale mu nekk en public loolu képp waaye nag yelu ak biral mo am yelu ak biral gis nga julli sax am na yo xamni da ngay biral am yo xamni da ngay yelu wala bu fekkente nit ki da nga sekk mom lo xamanteni bi c'est privé lolu nit ñi man nañ ko baña xam hmm du deug bu fekke yalla rek tax bu ak aduna wala aduna tax nak <laughs> lay nak en public <laughs> waaye war ngeena xamni dafa am lu may incarner waaw dafa am lu may incarner mba yu may incarner ay facette yu bokul barki dembo Njaay la ne fi bamba fépp du deug waaw parti de la vérité xisbul xaq bay boo ñëpp di ko bàyyi xel <laughs> <laughs> du ñëw di am ñëw ci ñëw rek déet ay élection nan ñaan yàlla fekkee suba malakal mawti ak équipe am dañoo efficace te fu ñu toll ñu ngi rey nan ñaan yàlla fekkee suba <laughs> waaye li ma bëgg a wax rek xisbul xaq day yëfi Serigne Touba loolu laa bëgg a wax waaw waaye nag doonul lu kenn yàkkamti waaw xam nga lu ko waral mooy wasalaamu ala ni tabahal huda ji mu wax waaw maanaam jàmm ki koy am mooy ki aw ci yoon jub partie de la vérité ci Serigne Touba jóge jógewul ci man daf ne naa ko yëgle bu waxtam jotee dina manifesté wu waaw fi mu nag <laughs> am na ci yoo xam ne eh? na yoo xam ne du ma ko laalagoon damay bàyyi ba beneen daje am. <laughs> démb démb sa hmm. bi nee na ko taf suñu kaw ñu jox waaw xoola euh, am na loo xam ne nag gis nga baatin du dara lu dul baatin baatin du dara lu dul li nga tegul bët waaw xam nga waañ waa nga fële waañ waa nga fële fi mu toll moom waaw kenn xamul outil yaak ña fay nekk fi mu toll ñun ñu ne fi xamuñu dara ca waañ wa loolu rek kay baatin xam nga dafa am loo xamante ni bii xale yi bu ñu koy wax xam nga dafa am politique bu xew politique bi xew nag day feeñ ci langage Hmm? dañoo nekk ci monde moderne boo xamante ni bii maanaam wax ak comportement hmm, ak attitude ak yooyu ak jataay concertation maanaam dina lu nekk dina ca génne comprendre waaye toujours rek da ngay jàpp li nga xamante ni bii mooy l' essentiel li am solo l' essentiel mooy lan mooy une fois que ma yabal leen fa te waxaguma lépp l' mooy ma yabal leen fa waxaguma lépp li ma ci mën a wax daal mooy yabal gima len fa yabal jàppee leen ko ni yéen taskati xibaar yi jàppee leen ko ni 1111 yama ma xam nga waxna len leen ko 1111 li taxoon ma yabal leen waaw manam dafa bokul rek forme yee bokkul mais lol képp a jam kep waaw suma xamone xamoon ni su ma leen yabalee su ma day jur lo xamni ni nit ñi duñ ko rafetlu kon luma ma yabal <laughs> parce que ba ci logique boobu <laughs> je suis un homme de paix sama passeport euh, ambassadeur international de la paix mo ci nek <laughs> moom lañ ci def bàyyi ci donc bu ko defee. bi euh, Abdoulaye Wade nañ ni que ni sorteem bi muy wax wax bu xamante ni da koy ñaaw ñu bu njëkk bi nekk euh, te sànq yi te avant may ñëw sama naataangoo yi wax na ni que ni yëf yi buñ ciy jóg euh, mën naa jóg wax joo xamante hmm. dina. gën a ah est-ce que dina mën a wax lu gën ah waaw waaw eggale. <laughs> tey jii nag <laughs> eh. comme comme démb yi seen ndaw ñoo fa nekkoon. Eh. mu wax ci daal xam nga Abdoulaye Wade bu gisee ay sëtam yoo xam nga maam ak ay doom maam ak ay doom xam nga bu fekkonte ne man maa fa nekk man su ma toogoon ak moom du wax yooyu ma toogee moom du wax yu baax la ñuy wax ci Serigne Touba la ñuy wax lu jëmee réew mi kanam la ñuy wax yooyu laa séq moom séq ma moom may waaye gële est-ce que tu connais est-ce yi na nga xamal Ablaye Wade wax naan ko lan naan ko góor gi defal lii mbaa bul def lii. Ah, parce que gis nañ ni mu accueillir waaw ni leen accueillir ak yooyu yëpp baax na waaye dafa yor ay façon magale ko. léegi góor gi daal bu nu ko wax dara nan wax ak Macky Macky de ce il n'est pas conscient de waxuma mais dañuy wax ak Macky mi nga chef suprême <laughs> <laughs> de sa conscience safirula N'a ci baax nga wax ba <laughs> nañ ko Macky la maîtriser na limi def nañ ko rek waaw bi ñu def justice bi la. <laughs> Yo di li ma wax sànq justice bi daa bëri yu nek ci biir yo ya, xam safurullah justice bi justice bi aw tur la rek ay non fof la yam ba benen yoon parce que dal justice bi la ilaha illallah justice bi da ngi ne ma nga nan auto bi rek auto bi mo man na mel nu ne waaw de secours waaw man laa <laughs> bismillah waaw waaw waaw oto waaw xam nga oto day am day jag mbaa mu ñàkk a jag ñaar yooyu fi nekk bi nag ah, jagul mën naa mën naa nur lu jag nii ci forme mais ci fond ñoom ña ca di ay juriste te di ma dégg xam nañ li may wax néew ma jagul ci li ñuy wane waaye néew ma jagul ci li ñuy wane waaye li ñuy wanewul jagul man moo du maa wax lool <laughs> xam nañ ma xam dafa am xam nañ ma xam <laughs> lu leer la jag na ci form waaye jagul ci fond mi ngi sunu kanam dañ ko waxaat xam nga fi ñu nii moom man ay kii rek laay joxe ay code ay moo dama koy codé bis bu décodé jotee بنو كو ياكمت ناخ لولو حزب الحق لاي لاي خار اك معالم الدوله النموذجيه لا لي كاركتيرستيك دي لتا موديل لولو لاي خار لولو حزب الحق ماكو في خيوال اها ادونا دوي دوخ عمر الانسان يامر بتدريج etap par etap donc bu joté hizbul haq bu joté ba développement bi mais développement bu fi kenn séentu léegi kenn yii di xew du jur développement. mooy ci ñaari concept ya ma waxoon ca début ba ci saytu li nga xamante ni bii mooy defar mooy rafetal mooy jur jàmm moytu li nga xamante ni bii mooy mooy yàq mooy ñaawal tey juroo ay. ku ci nekk am nga ci part de responsabilité moo xam sëriñ bi moo xam dongo bi moo xam chef bi moo xam kamu chef waaw loolu daal ñun ñëpp buñ tënkoo ci lool rek ku nekk am nga devoir comme ni nga amee euh, droit donc euh, loolu ñun ñëpp la concerne daal ñun sénégalais yi yu góor yi ak yu jigéen yëpp la concerne mag ñeen ndaw ñi wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh